waaw gars yi ah mais gars yi équipe bu mag baa ngi nii de gars yi gars yi Ndakaaroo ngi nii de Serigne Ndiaye de ak ay rakam ànd ak xale yi ñëpp ah mais sa waay <laughs> waaw mais Serigne waaw Serigne Ndiaye ah, moo gét sax dama bëgg nga waxtaan ak sénégalais yi ndax ndam li ngeen am dafa reuy lool te réew mi dañ leen di bàyyi xel rawatina yow Serigne Ndiaye de euh, ndam li nga am ci équipe nationale bi ak drapeau chef de l'état bi te ànd ak yeeg xale yeeg ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp mu nekk loo xam ne rafet la gars yi ñëw leen nii ñu waxtaane ko tey jii ndax lii dafa am solo trop quoi aca gars yi ñëw leen ñëw leen nii aca ñëw leen nii mais Serigne Ndiaye de mais Serigne Ndiaye ci loo nekk grand maa ngi nii sant yàlla bu baax. mais ndam li rëy na de. division bi sant suñu ñaar waajur. wallaay ndeysaan. wax dëgg yàlla di sant baax a baax a baax. wallaay ndeysaan parce que man ak kese mënuma dara. waaw donc su suñu gars yi joxe ndam. Mhm. mooy sant ñu ni ak staff yëpp. Mhm. su ma su mhm. su ma suñu course yi pôle. femmes yi ñoon toggal. xam suñu médecins yi. xam suñu gars yi ñu àndal si làmb yëpp. amuñu seen fay ak tam rek. xam nga na jafe trop. wax yàlla sama gars moom ay génne ay jàmbaar lañ waaw li ma wax saa su ne rek man amoo pression dama wàññi ma poids def ma dara mais gars yi dañoo may problème poids gars yi di wóor deux trois séances ma wóor deux trois séances nga wóor ba pare war a ndaw nga tegal ay salade man nga tegal ma fee ginaar te yàlla xam ne ne ginaar seen loxo di si dugg waaw te loolu yëpp seen jàmbaar ak seen courage moom moo tax waaw mais ñaan yàlla dafa lañ ca ñëpp yàlla sàmm ñu aar li nga xamante nii jël nañ ko. Mhm. muy drapeau chef de l'État. ñaan yàlla. Mhm. yàlla la fa ñu cat ñëpp. Mhm. suñu ci lay daal. nag si jàpp ñëpp. gis nañ suñu bopp di jaajëf. seet jàppale si bu baax a baax. ñoom fekk nañu groupement jël amal bu am solo jox ñu ko. le grand moo géet. jàpp si. jox ñu seet gërëm. moo géet. mais mais mais Serigne Ndiaye de fan nga jëm ci làmb. ndax ak lu lamb yep ñu lay bàyyi xel te jot na face gëj naa am champion bu melni ni Serigne Ndiaye 2 face gëj naa am champion bu melni Serigne Ndiaye 2 c'est la première fois face am poids lourd bo xam ne nii rajaxe mbapati dakaru dem drapeau sur de l'état jël ko dem équipe nationale def lepp Serigne Ndiaye 2 fan nga jëm ak lamb ak bëri dóor fi jëm ak lamb moy moy moy li ma wax saa su rek moy être le meilleur des meilleurs la ngeen yàlla suñu borom wax dëgg yàlla làmb moom yaakaar naa ku dugg si dara da ngay ñaan yàlla def lu fi kenn deful loolu la ñaan yàlla ñaan yàlla loxo ñu cet nag wax dëgg yàlla suñu grand yi nag wax dëgg yàlla na dañuy am combat ngay bëri daan am problème ñu yegg fi ñu ku ne ñaan nga yàlla am teranga ci làmb te teranga ci làmb bëri moo koy maye wax dëgg yàlla ñoom yàlla may na leen teranga nañ gis suñu xale yi may ñu loxo ñoom ay teranga comme ñoom du yoon mais fan nga jëm ci bëri doon bi waaw mais mooy wax gars yi kan nga bëgg bëri mais da nga a simli Serigne Ndiaye de ndax da nga bokk ci làmb la dëgër de laa bëgg bëri la dëgër de gisoo feneen ku dul la dëgër numéro 2 laa bëgg xam nga ne loo bi ñoom saa kees nekk ak rëg-rëg da faa bokk xam nga loolu ah, xam nga li nga mën a apporter bëri door xam nga ko ah, baax a si dugg tey macha allah pour di traîner wala dara yow dugg si làmb xam nga pour am ñu teg suñu bët te bët ko si kàttan yàlla. nañ la xaar ci bëre dóor bi. waaw alhamdulilah wa alamin. ak waa Fass. incha allah. ah gars yi sama gars yi nag. waaw sant waa Fass yëpp suma entraîneur yi surtout suma entraîneur yi. père Amadou Kati Diop ndaral la. waaw père Kati Diop xam nga père Guèye Camara Socé. Ibrahima mm-hmm. Mbaye xam nga père Seck. xam nga suma yi may entraîneur la coach Kanté di sant Fabrice Aros nag depuis la France di ko ñaanal mu tere jàmm salaam daal. jërëjëf yaa ngi génne. ngeen dundee affaire bi mu gaaw. affaire bi de waaw dundee nañ ko comme dugg nañ si bisimilah rahmaani rahiim ñu génne si alhamdulilah rabbil alamin. Mhm. suñu borom may nañu ndam bu sedd ji. allahumma amiin xam nga waaw ndam bi moom dafa ma ne xam nga kenn nit moom mënul andi ndam. Mhm. waaw xam nga booy ay jàmbaar lañu man moom. ndam bi moom booy laa ko may quoi. jërëjëf waaw booy laa jël ndam bi yow ma may ko nag xam nga ay jàmbaar lañu quoi. ndeysaan ndax xam nga mënoo di woor di jóg si heure bi entraînement. Mhm. mbiri nga jóg contact. Mhm. cinq nga demaat contact. Mhm. ba pare gis ay ginaar di lekk salade. <laughs> loolu métti na loolu métti <laughs> mais le grand champion mais ki nga daan daral la. waaw auzu billah bismillah ginnaaw bi ñu sant yàlla julli seen san di sant fii jaar waa di sant équipe bu bi yëpp parce que gis nañ seen taxawaay su mel ni Serigne Ndiaye numéro deux capitaine di nuyu waat mu ngi koy cent kilos xam nga Mbaye Diop permanent xam nga baabu mais mais mais nuyoo bi bari na gars yi dañ laa bëgg gis ci giiw arène. waaw nga wane sa bopp. ndax jot na tuuni. ren rek bëri naa man maa ngi si huit combat huit victoire. nga bëgg a bëril ci arène. waaw samay na ñoo yor samay morom. parce que. muy kan ñan ñooy say morom. kan moy sa morom. wa ñi mu bëgg a bëreel dañuy bañ. parce que na kan? soga war na ma mën may chance. man bëri na 8 combat 8 victoire. combat spécial gars nañ ko may chance moy 8 huit victoire duñ caaxaan ci làmb. huit victoire dañ maa yónni yaakaar. waa fan. wa Kër Mbir naw tundu jender bi yépp tuddu surtout Abdourahmane Ndiaye Farak laa. ana jëm kéri mo nga fa jëm kéri tuddu <laughs> bu baax a baax surtout Abdourahmane Ndiaye Farak laa. ndaanaan nga sama mam bàyyi woon la bëgg yóbbuwaat jandeer incha allah. jërëjëf le grand champion Tony gaynde gi nan ngeen préparer bëss bi. ah bëss bi dem moom bëgg fa neex yàlla yàlla. Mhm. préparé nañ ko comme ni ñu ko war a préparé rek. ndeysaan waaw instant yii wax dëgg fa man aw ma lu ma war a wax. parce que gars yëpp wax nañ lépp. jërëjëf waaw xanaa di sant gars yi ñuy jàppale ñu ngi leen di tàllal loxo tamit. jërëjëf waaw gars yi jàppale waat ñu. autorité yi jërëjëf kenn du yéen. moo gën dama bëgg defal ko benn image sax ngeen ngeen ah le grand champion. sa jaay kii moom jaaytaar la ah. góor du ragal góor. kenn du yow. <laughs> waaw mais kontaan nañ ci yéen. ban message waaw di wax gars yi gën ñoo jàppale rek. Mm-hmm. gën ñoo jàppale rek. Mm-hmm. te ba pare gëm nañ ko ba pare. bi mm-hmm. ñuy dem dañoo gëmoon dañuy na gën ñoo jàppale rek. jërëjëf mais image ngeen di sànni ngeen ñu dégg ko ngeen waxandoo ko mu moom mënuñ koy wax lenn la rek. mais moom daf ay teranga. ñu uh-huh. ñu reyante te uh-huh. ba ko teranga moom tamit. Uh-huh. léegi ñu toog yàlla ñu ngi nii. yàlla na tàkk affaire bi ñoo jaral mais ku si nekk nekk tey ci tàkku fi mu